ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor les minutes waaw muy combat boo xamante ni du ni cinquante cinquante mhm. non non yow looy wax dama ni favori laay jox Modou Lo Modou Lo nga def favori yow waaw parce que poids acier la ak poids élastique mhm. leer gën koo leeral maanaam xam nga sport la wax. waaw VDN. Uh-huh. victoire défaite match nul. Mm-hmm. mais combat bi boo ko tegee ci balance. Mm-hmm. da ngay xam ne Modou li mu compétir ama compétiru ko. bëri na ñoo bokkut a xalaat de. waaw man peut-être. am na ñu ànd ak yow ñu bëri na. man coach la parce que. tey mm-hmm. bu ma nee Modou moo moo nekk favori. moo mujjee def compétition. ci compétition rek waaw. da ngay wax li tax nga def ko favori. parce que tey Modou Lo poids la yor. Mhm. Ama poids acier. Mhm. te boo xoolee ñaari ñaari kii bokkuñu. ñaari style yi. yi bokkuñu. Mhm. nag. lenn rek laa koy waxal. bu bàyyee combat bi. toog seetaan Ama ba mu daw dal ci kawam. combat ba jeex na. ah kon kay ah. mais <laughs> Ama Balde su toogee minutes. Uh-huh. bëreewul. moo mhm. Lo dina ko wàccee. mais yow da nga ne def kee favori mais ni nga analyser moo lay wan ne ku ne mën naa daan morom. ci ni nga waxee. waaw loolu laa wax. mais bu dee parce que joxe nga sax conseil mbaa di nga dëkk yoof la. man Modou Lo Modou Lo ñoo dëkk. ñoo dëkk dañuy dañuy gisee lu bari dañuy. di wax moo tax ko wax fee yow dafa mel ni Abdou Bakhoum muy def analyse ci waa Pikine. waaw toujours day ñibbi. man nag Modou Lo bu ma sañoon mooy daan. <laughs> looloo am ñibbi na. waaw fii saa mel ni kii ñibbi na. sa wax de moom li mu waxee moom laa koy ñaanal ah. Modou la faral. moom laay ñaanal wax na ko sax ñu ñun ñaar ñoo dëkk. Max lu gën a jege. Modou Lo olof Ndiaye lu mu wax ci lu lu gën a jege. waaw kon moom Modou Lo moo gën a jege. mais combat la boo xamante ni ku ku la diw moo man da ngaa faral ka ca des. Ama Baldé ndaanaan la bi mu dugg see ci làmbu 2009 la yàgg fee def jaloore bari nag champion bu ne ku dem maa daan tafaatin rek maa daan guy gi maa daan loolu rek Malick Niang loolu rek doy nax mais kii nag. dogguma la mais combat am ak Malick Niang dañu koy démarché. xam nga Gaston dafay ndaanaan ci buy démarché combat mu woo Babou na ko foone mu ne ko maa ngi ñëw. ñu dem kër ñoom ama toog mu fekk fi góor gi fàllaay yàlla na ko yàlla xaral jàmm amiin mu ne ko man de góor gi ama laa bëggoon ak Malick ñaa nit ñi nit ñi ne ko da koo ragal góor gi woote ne ana ama mu génn mu ne ko Gaston sa combat dox ak Malick ñu ne ñeme ko kula ci nii nga toll ku man moo ku man ci moment bii ba baa muy jeex moo lay man da nga koo ragal mu ne ko mukk man xaw ma foo ragal dina ci nit mu ne ko jëlal combat bi ama jël bésu combat bi avant muy ñëw papaam gaañu moo waraloon bés boobu avant muy ngemb mu jubale ca armeel ya dem ñaanal papaam ziar ko mais ba mu dellu si daa mel ni ku nu xabtal moo tax keroog bu ko Malick Niang doo rey du nangoo daanu jom dafa am solo ci nit fiis kon xale boobu képp kuy bëre moom nanga ko bàyyi xel loolu loolu nag junj la rek fiis ma bàyyi la nga yeggale. non Ama Baldé amul ku mënul daan ci làmb Père Max wax naa la ñi ñi mu bëreel daan leen ku dul champion mënoo daan ñooñ ku daan tafaatin loolu rek loolu rek doy na Malick ñaa comme ñëwaat nga ci léegi mais kii nag day naaraan boo xamante ni moom dégg naa ñu naan guddul rëyut waaw waaw waaye mais bu at bi suuflee da nga koy jox cër loolu dafa nekk ci moom mu nekk mbër moo xam dafa mën a bëre seetaan naa ko fu ne mu bëree mbapat mu duloo combat la boo xam ne daal Père Max du yomb de day metti ku ne kii nga kii mooy daan da ngaa faral ko neex te le treize buñ sumee ko ah ragal naa ragal naa ñu doon analyse ñu bari dina noppiwaat nag. jom jaa bari lool moom muy Modou Lo ba muy tudd Modou ba muy tudd ba muy ñëw Modou rek la tudd xarañ gi da koo dab mu ne ñu ne guddul rëyul waaye comme dajee nga respecté ko du hasard ñu tuddee ko xarañ loo lu mu am lu ne joma ko ko may ak gëm-gëm waaye mu tante pour doon roi des arènes échec ci bombardier daal di dellusiwaat ginnaaw jël Lac de Guiers am ndam ci moom di jogaat ñàkk ci Balla gay waaye taxul mu bàyyi mais jom ndax mook Balla gay bokk nañ ci mbër yi gën a siiw kër goo dugg da nga fa ci seen supporter ak nam ñàkkee waaye gëm-gëm moo mën a tax nga ñàkk ci Balla gay continuer di reyante ba jëlaat roi des arènes bi ci Eumeu seen mi nga xam ne daan na Balla gay ñaari yoon kon kooku daje moom na nga ko sédd cër waaye nag mooyul ma xale bu la yàgg a topp Ama dafa yàgg a topp Modou ndax topp na ko ba mbuur bi ñu bëgg a xeex bàyyi ma joon daf caa dugg te booba lii nga tëggoon mais li tax ñu xam ne combat bu doy waar la ba mu koy topp Modou da ko wax defal say preuve mais Ama dem di bay waaram moom it fiis wax na ko léegi ku daan tafaatin daan Malick ñaa waxuma ñeneen ñim daan fayu ci sos daan daaw daan sos daan Papa Sow ak nam daanee ak daanee Papa Sow bëre amu fa da koo jaar sàkk imposé ko rek dox ci kawam te Modou Lo ak Ama Baldé di samedi ci suba ak ci ngoon ñu bokk di entraîné bokk lépp kon mën nañ sax revanche da bu la neexee waaye Modou Lo moment bi mu koy jël su ko neexoon ne ko defaatal say preuve ndax da ko doon defal say preuve mais dem ba doon roi des arènes premier mu war koo jël moom kon am na lu mu bëgg a wane. Ama nag papaam daf ne woon caat mi ngi nii lu manqué su ñëwee dina ko mottali amoon ci moom yaakaar lool moo tax combat la boo xamante ni fii wax na ko léegi ku la ko yombalal moo la ko xañ Modou Lo am na combat Ama Baldé am na combat. bu bi koy tëggit am na événement bu mag ndax dayo combat bi moo toll noonu ñii dañ ne na dem arène nationale ñii ne na xajul arène nationale ñii ne même xaj na fa mais ama sorti wu Siteu bi dafa tiital ñu bari ndax Siteu daf ne woon la may bàyyi jàmm gën moo ëpp lay ñëw estaat waaye bi ko bi arène bi jegee dëggal na ko nga xam ne xale yi dañuy dox rek ñëw te lam dugal estaat moo ëpp lam bàyyi ca bitti loolu it moo dal Ama Baldé ndax moom bu geesoo rek yegg si ci arène bi kii foofu lay waxee pour raison de sécurité mais bu ñu yokkee billets yi ak service d'ordre bu doy combat bi xaj na fu ne ndax dañuy dem arène nationale fa lañ jëm wala dañuy dem amitié promoteur bi ñaan na ko mu ngi koy ñaan la ministre des sports ak état bi pour ñu pour ñu jox ko mais li may wax rek mooy combat la boo xamante ni du yomb maa yow ba léegi sa favori da nga koo tojagul tojal ma ko gën ma koo leeralal. xam naa ne sax ñëppi nga mm-hmm. ndax dañu ne Modou li muy bañ la Ama di bëre Modou bu ko koy sëkkatal te Ama fa taxaw mu fekk la fa. waaw moo tax ma ni la. Mm-hmm. Modou. Mm-hmm. moodu bu taxawee. di xaar Ama Ama da koy dox ci kawam. mais lenn rek laa lay xamal ni Ama tamit. bu toogee cinq minutes dalul si kaw Modou ñàkk combat bi. waaw Ama bu toogee. cinq minutes. dalul ci kawam day ñàkk combat bi. bu ñu xeexee. bu ñu xeexee Modou Lo demee na ko Dondoo moo ko daax a xeex. bu ñu bëree. bu ñu bëree bëri day feeñ. <laughs> ñibbi na. leer laa lay wax. waaw fii bu ñu xeexee. non père li ko tax combat bi sax muy métti mooy Modou Lo bul faate dafa dugg Pikine daan fa Eumeu Sène deux fois daan fa Khadim Diallo Ama Baldé dugg parcelle daan fa Papa Sow daan fa bàyyi pël ba mu daan bàyyi pël Modou Lo moo ko indi woon kon combat bi revanche mën na nga ne revanche la kii dafa dugg fee dafa 2-0 kii dugg fii mosu fa daanu loolu moo tax combat bi di gën a metti mais buñ xeexee ah, ah Modou Lo lay avantage nag ndax Modou Lo moo daax a xeex mm-hmm. mais buñ def jaawale ne runkum bëre Ama Baldé mën na fa am avantage ndax dégg naa ñu ne doolee xale mais est-ce que ëpp doole ah loo loolu jàppoo ma nga koy xam loolu le treize lay xew mais bu ñu xeexee moom Modou Lo moo avantage mais magew ko lu bari de mhm. waaw ay morom lan rek ay magee ay quatre ans deux ans loolu du magee dara ay morom lan rek ñoom ñaar ñëpp ay morom lan mhm. mais garab ci kaw lay fekkante mais daal bu peer bu ñu xeexee quatre-vingt-dix la quatre-vingt-cinq mhm. li magantee bariwul cinq ans cinq ans juróomi at du magelu dara kay maa lay wax aas yeeg yëpp man moom man moom fu ne maa fay dugg man moom man moom man moom ak quatre-vingt-cinq man kay lu ne maa la koy wax moom waaw quatre-vingt-dix la judd xale bu ndaw la Modou Lo quatre-vingt-cinq trente-cinq ans la bariwul bariwul li ñu ma gën. 5 ans waaw ay moroom lan mën noo man en tout cas mën noo xeex. te buñ xeexee dina metti trop. ardo damay ragal buñ xeexee nag am ku wuy ji ardo de ardo mën na cee am moo tax daal père combat bi comme li nga wax rek sécurité bi na doy promoteur bi mu yokk bii bu ko defee daal mën nañ koo bëre ci jàmm mu jeex ci jàmm këlëmeer gañ ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor les minutes de l'info